oui ou non naka nga ko gisee lu jaadu la wala loo xamante ne si nii warut am la. waaw c'est-à-dire que man aussi euh, su may wax ci troisième mandat bi damay revenir rek ñu introduire histoire c'était en 2011. Mhm. Macky Sall lui-même waxoon naa ko fi nee naa leen dafa dem Sandaga jën mat la mer gàddu pour dire non au troisième mandat i demoon na ba ne suma bakkan wala Abdoulaye Wade bakkanam. vous voyez. Hmm? donc man j'ai assisté. comme ni ko Ousmane Sonko waxee nii. waaw pire sax Macky Sall loolu Macky Sall nee na. on va déloger le président de la république. ci palais bi. te Ousmane bon dane rek maa ngi leen di wax ne leen œil pour œil dent pour dent. Mhm. cest dire que olof nag moo ko waxee gat sa gat a mhm. vous voyez donc tey ma jàpp ne aussi lépp lu Macky Sall doon bañ pour stabilité réew mi am. Mhm. lépp lu mu doon bañ pour ñu sauvegarder suñu démocratie tey la ko war a mën a gën a bañ. parce que je vous le dis et je le répète. que ñun yoruñu royaume. ñun république la ñu yor. te république bi dafa am ci ay chartes yu ko teg. mooy respecter les lois mooy respecter aussi suñu constitution bi moom en premier temps moom le président de la république Macky Sall moo ne euh, personne ne peut plus de deux mandats loolu la ko constitutionnaliste njëkk a wax ñu ne ko lii moom mën nga ci mën nga ci am base boo xam ne su ëllëgee leneen loo bëgg mën nañ ko sax changer Macky Sall dafa di moom il di ñett du du du demee noonu ñu ne ko loo bëgg mu ne dama bëgg ngeen bind personne ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. ñu ne ko président bu ñu ci dugalee consécutif bi sa septième sa sept bi day dugg ci premier mandat bi mu ne effectivement daf ciy dugg donc man bu ma sénégalais yi wóoluwaatee ba jox ma une deuxième mandat boo xam ne mille vingt 2024 lay jeex damay ñibbi. parce que moom li mu gëmoon mooy réew mi donn wu ko ci ay parents dafa politique nekk un républicain xeex ba sénégalais yi wóolu ko dénk ko Sénégal man aussi ma koy wax ne ko. Senghor il était sorti par la grande porte Abdou Diouf il était sorti par la grande porte Abdoulaye Wade malgré tout génn na ci jàmm donc nag ñu ngi koy ñaanal moom président mais nag Abdoulaye Wade tamit balaa avant moo génn aussi bëri na tamit ay nga xam ne tuuru woon nañ xam nga bi may euh, wax ci Senghor euh, Abdou Diouf dama dem directement mhm. mais bi ma ñëwee ci Abdoulaye Wade nee naa amaana sax génn na ci jàmm mooy. am Wade boo waxee amaana boo waxee amaana day mel ni si dafa génn si jàmm alors que ni 2012 ñun boobu ay xale lañ. mais nag tàng na jël waaw y' avait y' ah, man mii man mii demoon naa ci euh, manifestation yi. Mhm. donc encaissé naa fa ay liif. parce que li ñu doon combattre c' était pas pour la personne de Macky Sall. Mhm. mais dañ doon combattre combattre pour sauvegarder notre démocratie. Mhm. donc tey aujourd'hui au moment où je vous parle boo xoolee les télévisions françaises maa ngi la lay wax ne la am na luy xeeñ ci réew mi. te na ci Macky Sall bàyyi xel. xam nga les télévisions françaises musuñoo intégré ci biir Sénégal wala ñuy jéem a interviewé kenn sans pour ñu am autorisation président de la République. tey aujourd'hui France 24 interrogé nañu Ousmane Sonko sans pour autant ñu am aval président de la République. donc tey boo demee en France. tey ci hémicycle France bi à l'Assemblée nationale française tey gars yi ñu ngi débattre ci candidature Macky Sall te la majorité aussi des députés françaises d'accord ci troisième mandat xam nga vous savez pourquoi mhm. parce que la France daf fee am fii au Sénégal plus de soixante-dix société mhm. tey terre bii ñuy wax Sénégal di ko nangoo di ko ndamoo gars yi di ci fëgg seen dënn ñoo ko moom ñoo ko moom or Sénégal moomul terre. non mais terre bi Sénégal moo ko moom. non no non non terre. ah mais d'après li nga xam ne moom la moom moom la nguur gi wax. waaw wax na yëkkati nañ lu mat sept cent et quelques milliards dafa ci terre bi waaw mais xam nga ah mais donc loolu kay suñu moomeel waaw xam nga euh, je vous dis ne dafa am ay accords yoo xamante ne bi état bi daf koy signé ak d'autres euh, ak d'autres état ah bon tey euh, boo xoolee suñu péage bi aussi mhm. Sénégal moomagul autoroute à péage bi waaw péage bi moom d'accord nañ Sénégal moomagul waaw Sénégal ko li am ci suñu terre bii nga xam ne moom waaw ah, mais non là moom je suis pas d'accord avec vous li am ci li am ci péage bi mhm. moo am ci teer bi wala lu ko gën a pire moo am ci terre bi Mm-hmm. donc dafa am ay société française yoo xam ne ñoo fi implanté wu ba pare téye lu bëri ci économie Sénégal léegi ñoom xam nga chaque jour dañ lay wax ne la un état n'a pas d'amis mm-hmm. un état n'a pas d'amis il n'a que ses intérêts. Mm-hmm. français yi nag seeni intérêt la ñuy préserver. fii man fu mu nii man waxuma sax ay waxu teer mais troisième mandat wu candidature euh, président Macky Sall troisième mandat. waa xam nga euh, troisième mandat bi. loolu xam nga wax ko mooy mooy mooy mooy yàq sa énergie quoi. c'est-à-dire que man li ma gëm mooy. li ñu bañaloon Abdoulaye Wade pour sauvegarder notre démocratie. jeunesse sénégalaise bi ak peuple sénégalais bi. duñ ko nangul Macky Sall. waaw mais attends man xam ma dama dama dama jot benn vidéo ci Barthélemy Diaz mu wax ni maanaam suñu constitution bi nga xam ne moom la ñu am moom mooy suñu bible moom mooy suñu coran xam nga ko waxee noonu lu constitution bi wax moom loolu la wax bu Macky bu ñu validé Macky Sall troisième mandat moom du génn di taal génn di rayante du génn di xeex moom moom mi ngi ak moom moom mi ngi ànd ak Ousmane Sonko. waaw léegi xam nga Barth euh, ci position bi mu nekkoon. Mhm. tey boo ko ci laajaatoon nii bu jàmm ji info demoon laajaat ko il va dire autre chose que li mu waxoon. vous voyez. comment lu tax waaw xam nga lu tax. xam nga Macky le président de la République Barthélémy Dias homme de parole de. waaw waaw mais mais fi mu nekk nii euh, discours am changé na discours am non au troisième mandat la Barthélémy Dias di wax xam nga pourquoi. Mhm. cest a dire que am na foo xam ne bu fa nit tolloo buy wax da ngay xam la même personne bii wax kan la. c'est-à-dire que nga mën a identifier personne bi dafa am solo nit mën na wax tey demee mu weddi li mu waxoon mais li am solo li am solo ba am solo yaa ko wax léegi mooy troisième mandat waxuma la ci euh, ci euh, ci Afrique mais wëral àdduna Barack Obama defoon na benn discours mu ne man lorsque j'étais élève mu ne au moment où j'étais élève mu ne président Mugabe mu ngi mhm. nekk président nee na ma ñëw nekk étudiant mhm. mu nekk président ma ñëw nekk sénateur mu nekk président ma ñëw nekk président mu nekk président ma wàcc présidentiel mu ngay nekk président mais au nom de quoi Afrique bëgg a moy ci présidentiel mhm. bëgg cee téye na ñoom duñ fi jógee Kadhafi il a fait 42 ans de pouvoir donc am na ci loo xamante ne bii Macky Sall moom puisque il est né après les indépendances mm-hmm. am na loo xam ne honneur am moo ko ko war a may. mais mais mais Kadhafi nag Kadhafi nag bi bi nga xam ne gars yi rey nañ ko aussi ah waa dëkkam dañ kaa regretté de dañ ko rëcc. waaw mais xam nga dictature bi mu andi woon moom ak Paul kagami mm-hmm. dictature boobu bu amoon Sénégal sax man moo ma gënal maanaam boo demee boo demee libi mm-hmm. un jeune bu am dix 18 ans am nga droit am maison. doo fay courant. doo fay ndox doo fay téléphone te da am salaire xam nga dictature boobu baax na parce que réew maa ngi gis seen bopp tey boo demee fii di euh, euh, Rwanda mais alhamdulilah am na dictature mais tey réew ma dafa stable tey jeunesse euh, rwandais bi tey exemplaire lañu ci Afrique tey même rwandais yi demoon voyager partout au monde ñoom ñëpp revenir nañu seen pays pour ñu soqaliwaat Rwanda je pense que ne loolu mooy mooy affaire bi quoi. d' accord troisième mandat Macky Sall Ousmane Sonko. waaw euh, je pense que ni man fu may commencer rek mooy damay jël fu mu fu mu rebondir léegi mooy euh, boo xoolee troisième candidature président de la République léegi dafa commencé nekk débat ba ci parlement français yi. Mm-hmm. parce que lan moo tax parce que comme li ñu wax rek ñun dañoo hérité li nga xamante ne moom mooy constitution France kon c' est normal mu doon débat si ñoom. et que lan moo tax ñoom ñu respecté limitation des mandats te ñun mënuñu ko respecté mm-hmm. cest à question boobu la war a posé gis nga boo xoolee euh, man dama naan candidature président de la république mënul valable dans tous les plans mënul valable fenn mm-hmm. ci ci justice ci moral ak ci fépp fu ñu mën a défendre da nga gis ay constitutionnaliste taxaw di ko défendre mm-hmm. mais gis nga lu ñuy wax souvent rek gis nga àdduna nekkul lu constitutionnaliste bi di wax mais dañuy xool kan moo koy wax est-ce que moom muy wax honnête na ci lu muy wax wala honnêtetul parce que gis nga domaine boo gis sport yoo gis dina am sport yoo xam ne dañuy wax pour seen poste dañuy am sport yoo xam ne aussi dañuy wax uniquement par conviction. Mm-hmm. wax pour lu texte yi wax. Mm-hmm. te tey bu ñu ko jëlee tekk foofu noonu rek Macky Sall ne sera pas candidat xamal la moo tax. Mm-hmm. parce que comme nu may wax souvent rek euh, Macky Sall moom constitution bi nga xamante ni moom moom la fekk mooy constitution 2021 bi. te constitution boobu 2021 bi Ablaye Wade fi la ko fekk. te Ablaye Wade moom constitution 1963 moo ko fal. et pour pourtant malgré constitution boobu noonu Wade amoon na droit à un troisième mandat te pourtant sénégalais dañu ko waxañ mhm. parce que réforme 2001 boobu la am te 2001 boobu noonu ba réforme amee si la limitation des mandats. Mhm. kon donc Wade euh, li nga xamante ne réforme bu mu def tenirul en compte premier mandat bi. Mhm. kon donc am naa trois droit à un troisième mandat te boo xoolee sax loolu la doon moom. ak ñu ànd ak moom ñëpp loolu

réviser waaw te kon révision boobu noonu day tenir en compte li nga xam ne mooy loi 2001 bi constitution 2001 bi kon ça veut dire que quel que soit alpha Macky Sall mënu am droit à un troisième mandat moo tax moom si boppam wax na ko boo xoolee daf ni man deux mille deux mille seize maa proposé woon Sénégalais une révision constitutionnelle bi nga xamante ni mbirum mandat lañ bëgg mu jeex tàkk. sa waay gis nga euh, gis nga Ismaïla muy gërëm naan par principe. naan sénégalais yi wala boog dégguñu kon bu dee sénégalais yi dégguñu tubaab kon ça veut dire que Macky Sall kon bu ñëwee naan par principe dañuy gis ne kii en réalité da xutul waxu justice mais waxu politique lay wax parce que boo xoolee euh, Montesquieu ci lu ci ouvrage bu mu de l' esprit des lois foofu dafay nettali bu ñu demee ba nga xamante ni loi yi am na problème dañuy convoqué esprit bi parce que avant ñuy wax loi bala bala ñuy wax article nangam ak nangam esprit bi moo jiitu te esprit bi c' est mooy la limitation des mandats te bu ñëwee tey jii nii loi bi am na problème te loi esprit bi mi ngi dund parce que esprit mooy Macky Sall moom moo ko indi kon buñ ko wax noonu nekkee ni mi ngi dund mu wax li nga xamante lu leer la te ñu bëgg a ñëwaat fii naan troisième candidature nul na pas cinq ans la wax yaakaar naa ni nax seen bopp la def. et nga jàpp ne dafa def li wax waxeet. comme ni ko comme ni ko Wade bëgg defee parce ko si ci la jëm parce que am na yoo xamante ni day da da da koy raamale parce que Macky Sall Euh, amoon na tuuti temps pour jéem a xool euh, nu mun a génnee def déclaration de candidature mm-hmm. parce que tamit Wade su ko gars yi meree mooy vice président bu ñu bëggoon imposer. après sax loolu la déclaration troisième mandat mais problème bi xeex bi sax au début nekkoon troisième mandat. Mm-hmm. mais pour jéem éliminer euh, poste boobu noonu. Mm-hmm. mais Macky Sall xeex bi dafa leer. mooy troisième candidature bëgguñu bëgguñu ko sax dégg. et que nag Wade lu ko si jik mooy comme lu a réussi la mooy réussir mooy dem na benn instant sénégalais ne ko ne ko bàyyi mu dem mais Macky loolu sax du ko ci am kon le mooy bu mu ko sax jéem mais ak Macky li nga xam ne mi ngi koy mi ngi koy liggéey ci réew mi yëpp mais est-ce man j'ai envie de demander aux Sénégalais Macky bu liggéeyu lan lay def mhm. mais dafa war liggéey kon donc liggéey la ñuy xaar si moom tey jii États-Unis par exemple boo nga xam ne am na ñoom tamit limitation des mandats mais soo fa soo bilan boo fa mënti am da ngay dem. mais ñun lan moo tax ñu war a gëm Sénégalais war a gëm ne Macky Sall am na bilan dafa war a toog mais yeneen dëkk yi gënuñ ñu. ay xel lañ yor ñu xe ñu yor xel institution lañ yor ñu yor ay institution kon donc buñ nee limitation des mandats. ak bilan nga boo mënti def. sa mandat bu jeexee da war a dem.